ay c'est une journée de consultation en ophtalmologie bu ñu organisé woon euh, fii ci école primaire bu Kabassal R100 donc mu nekk consultation ophtalmo ni nit ñi dañ leen di xoolal seen i bët bu ñu paree ñu xool lunettes yi nga xam ne moom méngoog seen seeni jàngoro ñu ñu may leen ko dina am aussi ñoo xam ni dañ leen di bindal ay tuufaay ñoom bu ko defee ñu mën a dem pharmacie mën a xam yan tuufaay mooy baax si seen bët ñu ñu bindal leen ko bu demee foofu mën ko jënd pour seen i jàngoro mën a tane wala mu wala mu wàññeeku. xam nga affaire bi ñu ko lancé dañu defoon inscription en ligne joxe ay numéro yoo xam ni nit ñi dinañ ci mën a inscrire bu ko defee ñu mën a xam nombre boo xam ni dinañ ko am d'ici jour bi donc bi ñu defee inscription en ligne bi aussi am nañ plus de ay cent personnes yoo xam ni ñëw nañ def seen inscription. bi ñu xëyee tey aussi tey si journée bi am na plus de cent personnes yoo xam tamit ñëwaat nañu ñoom tey la ñu soog a pour mën a faj seen i bët donc noonu la ñu defoon inscription bi mais bu fekkee dikk nañ dañ ko def euh, dañ ko defee noo xam ni ku njëkk a ñëw rek moom la ñuy bind mais xam nga souvent ñun ni ñuy liggéeyee mooy troisième âge bu ñu dikkee rek dañ leen di seppi xam nga xool ñi nga xam ni dañoo am ay tawat yoo xam ne mënuñu ko toogaale ñu teel leen a jël boo ko defee ñu mën a faju gaaw dem ñenee ñi aussi topp rang bi loolu moo loolu noonu lañ ko organiser ba pare xam nga mu nekk ay nit ñoo xam ne vraiment neex nañu maîtriser parce que biñ ñëwee vraiment euh, ànd nañoo dal topp nañu rang bi may nañu mag ñi tey it ñun aussi am nañu équipe boo xam ne vraiment ñu ngi saytu affaire bu baax a baax ba nga xam ni vraiment doo am débord doo benn benn benn jafe-jafe. de de de de zéro à cent ans wala à à waaw ça dépend ci âge bi quoi ku ñëw rek. ku ñëw rek vraiment dinañ defal consultation parce que am na ay xale yu fi ñëw am na ay bébé yu ma fi gis gis naa fi aussi ay ay ay ay ay ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen am na aussi ay mag donc ñëpp la ñuy consulter daal képp koo am problème bu bët rek boo dikkee ñu defal la consultation. xam nga du tey la ñuy soog a def consultation bi daanaka bii nii mooy nekk sixième journée boo xam ne organisé nañ ko donc am nañ ci benn expérience boo xam ne à Thiès am nañ ci expérience boo xam ni vraiment xam nañ nombre de verres yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy soxla ak façon verres yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy soxla aussi parce que ñu ci bëree bëri troisième âge yi seen degré souvent day xaw a métti am ñoo xam ne aussi dañuy am ay cataracte ay glaucome donc da ngay da ngay da da leen di sóoraale ñoom ñëpp quoi boo fekkee aussi si xale yi la da xool ci degré yi nga xam ni souvent mooy gën a mooy gën a mooy gën a moyen rek nga nga nga nga fexe cee indi lu bëri xam ni ñoom aussi ay début ay début mi yëpp am affaire yooyu non quoi waaw. journée bi nag dañ ko defoon mu nekk inscription 3000 francs participation bu tay bi non lañ ko def. xanaa di di remercier vraiment sunu sunu parrain bi nga xamni mom lañ parrainé won bés bi moy monsieur le maire Ousmane Diagne vraiment nim ci jappé ci publication bi ci taxaway bi vraiment am nañ mom contentement bu baax a baax a baax waaw di ko remercier di ko wax ni aussi waa koñam R100 ñëpp wuyu si nañ vraiment. kontaan nañ trop di leen remercier aussi ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu ndax nag teel nañoo ñëw te bi ñu ñëwee lu ñuy teel teel bi ñu ñëwee ñoom fekk nañ leen fi dagg nañu ticket faju nañu may nañu ay verre macha allah. mënuñu ko am nii bonjour nii mënuñu ko am parce que buñ ñu bindalee ordinance ñu di ko jënd dafay cher ci ñun mais bu ñu ñëwee fii dañu koy may gratuite vraiment ñu di leen di ñaanal seen liggéey bi fañ jëm yàlla na ko yàlla jëme kanam. moom consultation rek ngay dagg. 3000 nga ñëw consulter ñu xool sa bët ban numéro la degré la ñu may la ay ver parce que heure bu ñu joxee ver verre euh, suñuy bët lay doon moom la ñuy doxee moom la ñuy liire moom la ñuy defee lépp te du man c'est pas la première fois ma ñëw fii ñoom fu ñu nekk dama leen fay fekk parce que toujours boo méyobee say bët day day dem heure bu demee ba verre gisatuma rek fu ma leen dégg rek damay dem te ma leen fa fekkee macha allah su ma ñëwee des fois sax consultation duñu ko fayeeku dañu koy may gratuit parce que amul problème foofu buñ duggee dañuy xool bët yi bu fekkee ne da amoon ordonnance nga won leen ko bu dee amoon nga yeneen myope yoo daan takk nga won leen ko ñoom ñu xool ko jox la yeneen nga dem xool ñu la génnal nga dem ci biti boo demee ci biti xool bu dee say bët la boo ñëwee ñu jox la ay verre bindal la ordonnance nga dem jëli ko. leen gërëm di leen sant di ñaanal yàlla ay xale lañu ay ndaw lañu yàlla leen yàlla may li ñu bëgg ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam